طاعة ملكية حلى آدمي خلفة ملكية متى waaw maa ngi leen fay taalo di nuy waa Thiénaba yëpp di nuyu aussi tamit Sénégal voilà man la Birane Seck di chargé de mission conseil économique social et environnemental dëkk ci dëkk bi neen doon taalibe di jiital ci nuyoo bi la xalif général de Thiénaba suñu maam Serigne Abdourahim Seck diko ñaanal ah donc di nuyu waa ba yépp mais di ko wax sigil ndigaale di ko jaale suñu mam di gën aduna muy xalif general Baye Ahmed Tidiane Sek, diko ko ñaanal yalla yërëm ko te tabal ko aljana ah tay suñu teewaay fi, dañuy doom ci dëkk bi ah, bokk Thiénaba président la république ñu and ak mom di politique diko jappalé ci cadre alliance pour la république donc tay mu ñëwoon jaal si ki nga xamanteni moy xaritam di mam Cheikh Ahmed Tidiane Sek, donc duñu mëna def lu rafet lu rafetlu jaal muy jaal si diko wax aussi tamit sigir sa walu mom président mais tamit diko ko ko wat ndax ku ne xam ne relation bi xalif bi amone bay Cheikh ak le président de la République ak aussi tamit fi mu teg ba ci projet yu bëree bëri ñu mën cee la maison de bi nga xam ci jamonoom la ko def kon donc duñ mëna def lu rafet lu njaal mi tay nangu wat bu baax baax kaddu njaal yim fi andi di gën a am yaakaar ni fu mu tegoon canamba dina ko gën a euh, teg di sant di gërëm ni nga xam ne vraiment ñoom ñëpp teew nañ fi quoi. xam avancement lay doon parce que même président bu fi ñëwul woon yéene yi mu am ci canamba ak aussi euh, projet yi nga xam ne yàgg na koo def lu ci mel ni donc autoroute bi war a jugee canamba dem Tivaouane continuer dem ba Saint-Louis. mu nekk ay yoo xam ne le chef de Sall moom moo ko fi am yéene pour def ko fi donc bu ñëwaatee day gën a feddali coloré gën a consolider aussi tamit liens yooyu bu ñu fàttali ne président Macky Sall bi mu fi ñëwee en 2014 dafa am kàddu gu mu waxoon ni injustice bi nga xam ni presque état yi doon nañ ko teg ca na ba boobu man maa ñëwaguloon te donc bi mu ñëwee firnde ko lu ci mel ni ay visites yu mu fi def lu bëree bëree bëri tey jii mën na ni c'est sa sa quatrième visite ou bien sa troisième visite boo xam ne mi ngi koy def mais loolu aussi tamit dafa am benn message bu may jàllale visite bi président def c'est une visite de courtoisie visite de condoléance mais du visite politique bu ma waxee loolu dafa am ay politiciens yoo xam dañ ci raaxaloo di jëm a def ay récupération politique ci visite bi nan carte yi ñi lañ ko jox wala luñ ko jox dem nañ sax ba nan di taxé leen ñu opposition wala leneen ak leneen donc ma di ko ñaawlu suñu ay ambition politique xam nga un homme politique moom fu mu toll day am ay ambition fii ñu toll dañoo jóge ci ay élection présidentielle di dem ci ay élection locale élection locale yi nag ñu jëm donc ñoo ngi am yéene participer ci que si vous êtes aussi forcément le maire mais ce que je veux municipale parce que d'après l'équipe municipale il équipe municipale bu donc nous euh, espérons, pour beaucoup municipale bi vraiment donc nous présentement pour le président de la république a une action est aussi euh, développement bi nga xam ne moom la bëgg de manière générale ci Thiénaba ak aussi dans le département de Thiès vraiment loolu moo nekkoon suñu ay ambition politique